loolu yëpp mooy jàmm ji nga xam ne sunu maam yee ko fi bàyyi woon africain yëpp nawee ñu ko muy jàmm la paix moo tax ñoom ñëpp tey ñi dellu si taw si ñëw di nokkeel si président Macky Sall ñëw di nokkeel si président Macky Sall ouvrier sénégalais nag yaa war a fas jom am jom xam nga dafa am yoo xam ne si réew yow yaa koy ñu ñëpp ay président loolu mais da ngay góorlu si bu waar ba nga nekk bay sa wàll rek mi jeex nan euh, kooku moom feetu am militaire yi la gis nga dama xaw a sol trait sooy xool gis nga trait man bon dama xam depuis semaine nationale des armées fii lay camp bu nekkee 4 millions d' habitants dafa doon am semaine de l' armée mais xale yi ndeysaan xamuñu ko les enfants de léegi xamuñu ko mais da nga doon dem dugal la si hélicoptère. Euh, wala euh, armée wala lii mooy lii lii mooy lii bon boobu 4 avril. mais ba léegi nag ñu ngi koy sentir ak euh, la génération qui vient mais dama si parce que yóbbu samay doom ñu xool bon et puis surtout. kooku nag ñàkk xam-xam sa réew la réew da koy bëgg man su ma defoon militaire xëy na kon général lay doon parce que dama bëgg réew dama bëgg sama réew dama bëgg sama réew bëgg militaire bëgg homme de sécurité parce que sans la sécurité euh, kon jàmm di am daal. donc ku fonkul sa militaire nag xaw ma koy fonk. waaw ñu fas jéem a gën a fas jom rek jàppale ndawu réewam liggéey que liggéey leen ko sas waaw Marème Faye Sall jàppale ko jàppale ko bu baax premier daam jàppale ko jàppale jëkkëram macha allah macha allah merci.